Modou Lo ngay Modou Lo Modou Lo ngay lakk na lakk na lakk na ndeysaan Modou lakk na. yaram daw na. sabat yaa mën naa am ween mën naa am galgal mën naa am mbat mën naa am xatar bi daanu cey bi combat ku juum daanu ndeysaan Modou Lo ma gis nii na confiance ci lamb na ku laa eh, eh, ilaaha illallah eh eh. laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah Modou Lo bi eh gos droite laa ilaha illallah eh eh gos croisé droite laa ilaha illallah ndeysaan Modou yaramam tàng na Modou yaramam tàng na ndeysaan Modou Lo yaramam tàng na ndeysaan Baye Cheikh nuyu waa diaspora bi yëpp ndeysaan Kër la scène de l'élégance ma bëgg ngeen ko ne di abonné ca bas cloche ak j'aime di wax ni matériel yi ñëwaat na tey pour yëf yi gën a neex si yéen gën a leer jërë ngeen jëf hey Modou Lo dimanche bii laa ilaha illallah ndeysaan Modou Lo nag day ba ci war fee taxaw ndeysaan Modou Lo ngi jàkkaarloog Baye Cheikh ndeysaan jërëjëf desul ndeysaan ñëpp ñëw nañu parce que lépp génn nañu. Modou Lo mi def nii Modou Lo Modou Lo eh eh Modou Lo mi xeex la indi de Modou Lo gaa koy gaa koy gaa koy sot gaa koy sot gaa koy sot gaa koy sot combat rapproché laa fi gis laa ko sub du ko arriéral combat rapproché laa fi gis te dégg naa nit ki la ngay entraîné rek ngay indi si lamb combat lii lii li doy na war. combat rapproché laa fi gis laa la war encore. man la boo gisee dóor mu daanu bu mu la. combat xeexu mbedd. man la boo gisee dóor mu daanu bu mu la bett. combat xeexu mbedd. ay waay bii combat. la ilaha illallah ay Modou Lo ndeysaan ndeysaan mais li li ne li yéeme na de